dama dama ko information dañ ko informé ma dem police waaye buñ demee police léegi police ñoom dañuy bañ xam naa nit ñi di leen sonal moo tax actuellement nii bu ku ñëw rek dañ lay rejeté waaw waaye xam mi ngi si biir police bi instant bi instant bii may wax yéen nii mu ngi si biir police jantul bi waaye ñoom bu ñu ko bàyyi loon tuuti tuuti rek kon dina ñaaw. est-ce que est-ce que gis ngeen ni waa ji gisuma ko ak gisuma ko waaye information yi ñu am du ay information caaxaan. te ñu koy wax dañu waxantu te loolu olof Njaay naan lu ñëpp wax mooy dëgg. mu ngi si biir kon. te policiers tamit boo demee actuellement sax ñoom sax dañuy bañ nit ñi instant actuellement di ñëw di ñëw ndax ñoom su boppam xam nañu instant ni ñi ñu ngi ci en danger. yow da ngaa bëgg ñu ngeen jëfandikoo waay bu baax baax avant ñu ndax lii dafay war a jóge te lii mu ngi bëgg ëpp ndax gis nañ bu yàggul dara kees la fa xew ñëpp di ko méttulu ñu jàpp ne affaire yi maanaam même bu même bu même bu même bu mënta ñàkk sax dina am ab giir bu yàgg ñu soog a déggaat yu mel ni waaye yàggul dara ñu déggaat bu mel ni kon ñun sénégalais muy man muy keneen ak keneen en tout moment wala en tout instant yaa ngi si danger waaw kon ko ñëw ci bisu màggal màggal sëñ Tuubaa bëgg a bëgg a taxal ma bëgg a bëgg a gàkkal bisu bisu sëñ Tuubaa mooy li ma la wax rek ñaaw na ba fu ñaaw yem te et tamit def na lu muy def ba pare ñëw biir Touba te Touba moo nekk dëkk boo xam ne maanaam kenn du jël sa mbon mbon di ko indi biir Touba di di raw day raw déedéet Touba maanaam mooy dëkk boo xam ne boo indee sa mbon tamit yaag sa mbon yéenay ànd yaag sa mbon yéenay wéet la sëñ ba waxoon kenn du ñu raw suñuy jëf waaye kenn tamit du ñu fekk suñuy jëf tamit ndax ñun bu ñuy jëf dañuy jëf ngir borom Touba ngir ëlëk tamit lañuy jëf ndax d'accord ñu ñu wat li xamne mom moy ki pendam de mort ku ñu daal mais loolu la wax te lu yalla wax moy dëgg manam ñun lu ñu ñak jëfé lu yalla wax moy ñu indil cionay yëpp coono yëpp nga gis ni ñi dund ci mbirum àdduna li yalla wax ñukoy baña jëfé di jëfé manam c'est-à-dire c'est parce que oui non donc ñun yoy moñu sonal te yoy amul sens manam dëgg deug rek moy deug la sa gënaaw deug ay tiaxan la ay tapala la waaw jaajëf attends attends balaa ñëw tëj yow comme tey bu fekkoon mën nga jox benn solution boo xamante ne yow noonu nga gisee ni tey jëf ji ko def lii moo ci war rek lan nga ñuy mooy li ma leen waxoon sànq lu ma ko waaj a posé rek lu borom bi wax ci alxuraan mu leer nañ ñëpp maase waxandoor ko te képp te képp te képp ku maanaam ku ñeme dëgg tamit loolu ngay wax ku rey nit nañ la rey ku rey nit nañ la rey te maanaam Sénégal ñu ne maanaam musulman yi ñoo fi ëpp hmm. muy dëkk muy dëkk jullit muy dëkk jullit ñu war a jëfe loolu état bi lan lay xaar te état bi nii muy président Diomsu ak président Sonkale ñu ngi leen di xaar si loolu ñu jëfe ko si nu mu gën a gaawee ndax mën nañ ko jëfee ndax état lu mu mënut amut hmm. kon nañ ko jëfee sëñ bi fi ñu jeexale yow rek ah. fii dëkku Cheikh Béthio la dëkku ko nekk hmm. guddi màggal fii fii jëne ko Mahwa en tant que taalibe Cheikh Béthio ko wax hmm. ndax loolu tamit nekkul loo xamante ni loolu naqal benn côté mett na ma benn côté tamit méttuuma ndax damay xam ne maanaam fii kuñ ci mës a tuumal rek set nga muy Cheikh Béthio boo xoolee nuñ ko tuumaloon si kaso bi ba mujj ñu tëj ko fu mujje dëgg waaw maanaam dëgg dara du ko féete kanam waaw donte day métti waaye dara du ko féete kanam kon fii mu fii fii fii nga xam ne fii la leeree da lay war ni maanaam tuubaa mm. ba tey dëgg googu borom tuubaa sampoon fii ba léegi moo fi nekk te day gën di law nag kon kenn du def solo bon ba pare ñëw di raw biir Touba waaw mën nañ laa fexeel nag mën nañ la mën nañ laa teg ay tuuma nag te fekk yow dëgg gi alaa kulli xaal day leer kon kii tey lu ko indi ba biir tubaa sax mu feeñee fii moom xamu ko. moom moom Mouhamadou Lamine Diaw mel ni que ñu xool xeetam mel ni xaw xaw si nekk nekk ab Sénégalais ndax ñu fi dugg tamit war ngeen seggat bu xam ne ki ñoo fi dugg ci maanaam boo leen bëggee dégg yéen taskatu xibaar yi. manam Senegal, tol na fo xamne manam maanaam instant yi jamono yi may wax ak yeen tembe tembe tembe du du pa soxor nak waxuma pa soxor wala wala racisme waye dañu wara a delluwaat maanaam si suñu aada ci suñu ciosan kenn ku nek lo yelol ñu jox la ko si mi muy poste wala demen boy yëngatu hmm. ñu jox la ko nga jité ko ndax ma am rew bo bëgge mu avancer wala mu jitu hmm. da ngay xol population réew wala wa gox wa réew nga jox leen seen ak ak seen yelef ñu mëna a doxal ba étranger bu ñëw sax du ñëwee ñu manam di leen tek lo xamné ne teguwut ndax Sénégal yépp ubbé ko muy l'est l'ouest nord sud fépp ko fu way neex jaar fu way neex jaar mënatoo xamé sénégalais bi mënatoo xamé nationalité bi nationalité bi sax day ñëw sax di la imposer lu xewon bur bu yagut nationalité mo fa génn bal mo fa génn fetalam di tirer ci kaw nit ñi lo xamné sa maam yow da ngay toog ba si yàgg nga ne doomi réew mi sax ñimuko ay maanaam ay étrangers yoo xam ne dañ fiy ñëw ñu may leen fi doole si lan si ay koppar koppar goo xam ne yor nañ ko bu ñoom bu ñëwee di neexal gars yi suuf ñiy def si loolu seen seen seen loo xam ne maanaam mar day daal daal waaw maanaam bu yàggee daal sax ma xol day tàng waaw ñu tàggatoo ak yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm yalla mi borom jamm yalla len jàmmal def seni poste dara def suñu poste dara foofu lañuy tagato ndax borom bi ku mën borom bi la mën lo ku tele tamit borom bi la tele lo mi lay ñaan jamm bi rew ak bi di rew dege ya gis ngeen de ngeen li nga xamanteni mom la la la waaj wax waaw sudah. Macam grande. Kayak apa yang nanti Kalau beli agak lebih kok, nggak drop kok. Nggak mau dapat agak drop kok. Beli agak dua kok. Kalau. Jadi dalam itu nawar. No, lima kamu lah, dua kali. Amat. Jangan dua kali. Kalau saya sarah ini. Kamu bukan sarah Lu sering salut jangan. Lu sering salut jangan. Kalau depan dawal gudi lah. Siapa? Lu sering salut. Harus ilah depan. non aja moom pare naa pare naa daal ngi lay ziar bu baax a baax ñu fexe fi nga jana ko Mawa fi nga xamante ni fa lañu jàppee le présumé meurtrier de Aziz Dabala ak Wali waaye ko tudd Mouhamed Lamine Diaw sa réaction euh, gannaaw ba nga dégg nag jàpp na ki nga xamante ni moom mooy moom Lamine Diaw di créé Abdou Aziz Dabala salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax yàlla ñëpp am jàmm di santaat ci yàlla bu baax di sant yàlla jul ci yonent bi di sant Serigne Touba Xadim Rasul tey ngeen fekk ma fii ci pencum pencum janatu Mahwa bu Serigne Béthio waaye itam bu euh, Serigne euh, Saliou ndigal Thioune yaakaar naa barki bu jël ngeen ma fii ci penc mi fi ngeen ma jëlewaat ma wax ne ki nga xam ne moo poom Abdou Aziz Dabala ak ki nga xam ne mooy frère bi muy boom boo xam ne ñaaw na trop Sénégal yi àdduna yëpp teg seen bët du Sénégal rek moo ñàkk àdduna moo ñàkk parce que reen bi moo ñaaw yaakaar naa xar wala béy wala ginaar sax duñ ko reyee nii muy rey boo xam ne àdduna képp ku nit ku ñuul nit ku xong rek métti nga ko parce que doomu aadama waye mo waxoon kérok fi interview yi amaat du ma bàyyi ma ma ngi ñaan ci barké Serigne Touba ci barké Khadim Rasoul ci barké 18 safar parce que Serigne Touba mo am 18 safar ñew leen sant le ma suñu borom euh ñepp wara sant suñu borom nit ñew di def ay ñaawteef yaakar na ci wër bo xamné wëru Serigne Touba lañuy wax parce que dama tok kérok né bala magal ga jeex ci barké Serigne Touba ci barké Khadim Rasoul yal na yàlla suñu borom nit ki nga xamné mo fat Abdou Aziz ak képp ku ci laalé fi la ko waxan janetu fi fi la ko yegge war encore may santat serigne touba xamna serigne touba amul tanki ginnaw tanki kanam la am parce que tay beusam bi kep ku ci def lu ñaaw rek mo xam tay la mo xam suba inshallah dina feñ waye nak dañuy santat yalla parce que abdou aziz aduna ñak ñun ñep ñoo ñak may wax ne tay kep ko xamne ñew nga touba muy kilifa diine wala kilifa aada wala ndaw rek tay magal si nga mais sa xel yep fan la dem ci abdou aziz parce que niñ ko faata tay da ngay xol bu doon sa rakala tay wala tey bu doon sa mag la wala ko bokkal tey ne Abdou Aziz ñoo bokk ak moom parce que ñoo bokk Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wasallam muy lu metti waaye li may waxaat rek toujours damay lancer waat nguur gi vraiment aussi ñu xoolaat bu baax a baax saytuwaat bu baax a baax réew mi euh, vraiment rew mi euh, kenn amatul jàmm hmm. kenn amatul euh, maanaam fit sécurité hmm. parce que da dugg sa ñu ñëpp ay appartement lañ yor man mi appartement laa yor man quasiment dëkk keneen keneen ak keneen kon vraiment kon war ñu xool bu baax a baax te ndaw ñi ni ñuy reyantee metti na Eh, ay xar sax du leen rey nii da ngay gis nit da yor paquet jakkaro nit ray ko rendi fatit mu dem ñu bayyi nonu tëj ko ay 6 mois ay 1 an 2 ans mu gennat vraiment man je suis pas d'accord bu ma sañon man euh, peine de mort dañ ko fi andi parce que Sénégal c'est trop li ñuy ray dafa bari. da ngay gis benn mois dañ fi ray plus de 30 personnes yo xamne ne yu ñaaw ray yo xamne duñ ko ray sa xar. mun lu metti nak kon war nañ ci jog bu baaxa baax may lancer président Diomaye mhm. le premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. li ñu war a saytu essence yi bàyyi lépp ñu saytu li nga xam ne mooy ndaw ñi ak rey bi ñu xool nan la ñuy lijjantee ñi nga xam ne ñooy rey. tey seen biir dégg ci Nabou ñu ko doon tuumaal ci mbir mi ndax moom kat ku jege woon Abdou Aziz Dabala la mais gis nañ sànq ci benn statut kenn ku jege moom muy def ni mi ngi wax ne alhamdulilah ba lépp leer na mu mel ko léegi yoon sakal la ki nga xamante ne moom mooy Nabou Leye. waaw man du ma ne Nabou Leye dafa taq du ma ne Nabou Leye na ko parce que yoon jàppagum na lañ wax parce que dañuy jàppagum na kenn comprendre bu ñu xoolee image yooyu yëpp dañ ne Abdou Aziz kenn réyu ko comprendre nga man du ma ne Nabou Leye dafa set du ne set na man yoon laay bàyyi mu def liggéeyam yoon jàpp na kenn daal yoon ki mu jàpp piste boobu la jaar ba képp koo xam ne laale nga ci rek incha allah wala tax nga ci yoon dina la teg loxo mais kii set naa kii setul man xaw ma ko yoon moo ko xam yoon mooy setal mais li may wax daal en tout cas yoon mooy setal te yoon na def liggéeyal te li ma remercier nag bépp police Sénégal vraiment mën nañ seen liggéey te def nañ seen liggéey depuis ba koor ba génnee ñu def li ñu def fan jëbbal ko seen borom ñu dem suuli ko laa xam ne police dina def liggéeyam te na jàpp parce que xam na ki rey mais day def nànk na fi muy jaar mais en tout cas daal sant naa police Sénégal gendarmerie képp kuy takk der sant nañ la parce que seen liggéey motal nañ ko ba mot mm-hmm. parce que Abdou Aziz man buñ ki ko rey buñ ko jàppaloon wala feeñ ñu rek man dina am moom métti trop man parce que xam naa kan mooy Abdou Aziz parce que dama àdduna ak moom mu dëkk Thiaroye Azur ma dëkkoon Sika Mbao muy xale bu yaru xale bu am diine li may wax ni man ak sama ba ah. melan dañoo toog dañu doon toog muy xale bu am diine xale boo xam ne doo ne sax ci showbiz la nekk mm. day fecc ay kilibam ñu fay ko mu ñëw toogaat def ay théâtre am doo ko dégg ci lenn lenn showbiz mm-hmm. kon tey Abdou Aziz bu ñu ko boomee nii ñun dañuy metti ba ci kanam yàlla mm-hmm. mais daal li ñuy wax daal en tout cas yoon na def liggéeyam incha allah ci kattan yàlla. Ida ki ko tey dafa mel da koo xam parce que nee na da koo ñaan paasu màggal mooy wàllu aussi est-ce que waaw loolu am na solo day tey man euh, loolu tar na tey dina jël sama motuwaay keneen na jël motuwaayam parce que tey euh, paasu màggal nga ñaan ko nit mayu la ko. ah yaakaar naa nga jàpp ne yor na xaalis nga boom ko loolu dafa nekk loo xam ne man kuko def dama nan ya ko tay tay la tayef lay def en fait duma ne da nga da nga da nga wala len parce que nit yi alalam nga koy ñaan su la mayul amo droit siif ko la mayul amo droit ne ko da may may force information ma ngi koy dégg xaw ma la demee xawma mais en tout cas bu dee non la demee mom yon daf koy daan man suma sañon sax yon daf koy ba pare ñu woté mom ñu def ko comme ni Abdou Aziz tan de mort parce que def Abdou Aziz buñ ko deful ëllëg kenen dina ko def kenen Isa mm-hmm. ce que comprendre nga dina ko def kenen man suma sañon peine de mort ci booy bii lañ koy commencé ci kii lañ koy commencé ki rey ñi rey Abdou Aziz. Mouhamed Lamine Diawo. Mouhamed Lamine Amine Diawo. Euh, moo xam moo sañoon parce que métti na métti. Diawo bi ñu bëri nee nekkul parce que Sénégalais du def ñu mënoon ni euh, Sénégalais. waaw xam nga sant moom dëkkul fenn sant moom dëkkul fenn vraiment sant moom du ma ne ay jëkku Sénégal ak yooyu bu ko waxee damay ger yeneen réew yi parce que ñun ñëpp benn lañ euh, peut-être beneen réew am nañu baax Sénégal fi am nañu bon kon sant dëkkul fenn comprendre nga affaire moom sant dëkkul fenn nit ku bon la rek bon moom ci nit la rek voilà du ci ya du jógewul ci yàlla tam bon yaa koy sàkkoo sa bopp mais yàlla bindul nit pour mu bon nit nag yàlla lay bind nga juddoo fi nga war a juddoo vraiment mais aussi tam euh, kilifa yi dañ ci dañ ci joué lu bëree bëri xa euh, boo xamee amee xale mu nekk ndaw nekk tout tànk bu amee 11 ans 12 ans jàngal ko dugal ko daara dañ naan daara day yàq mais day defar parce que dina xam lan mooy alxuraan mhm. lan la yàlla wax ci rey nit mhm. te ñaawteef bi mhm. lan la yàlla wax rey nit kon euh, li nga xam ne moo di parents yi dañ ci joué lu bëree bëri dañuy am doom dénkaane ko am doom bàyyi ko dix ans neuf ans duñ ko gis mhm. muy fréquenté foo xam ne def ko tu ñaaw téef la den maa ko day dem ba dund loolu mhm. loolu mooy andi genre rancunier bi parce que ku nar tiim nit mhm. jël paaka waxuma la jam rek jël paaka ren di jël paaka jam plus de ak ah ndax xaalis ndax ay matériel nga nit ni mu fooree doomu aadama lu mu bind yàlla lu mu bind ci àdduna mu am bakkan doomu aadama la ci gën a fonk ci àdduna nga dem def ko nii vraiment moo xam lépp moo mën lépp moo a leeral lépp leeral na ko. balaa nga jeexal na fukki paak ak ñaar la ko la ko fukki jantam ak ñaar la ko def pour mu dee benn yoon ndax tamit euh, bakkanu nit pour nga rey ko yomb mu bëggoon na rey ko mu dee benn balaa muy dem est-ce que tamit nit am na xol boobu jël nit du ko jam fukki paak ak ñaar. kan moo wax da ko jam fukki paak ak ñaar. ci information yi. loolu loolu ah, tam génn ji. ok waaw mooy li ma wax rek mooy kooku nekkatul maanaam yoratul xolu sax julit xolu julit ko parce que boo yoree xolu julit wala waxuma la benn jam-jam mais nit sax ko dóor ku man ñaan naa nit dóor ko man barke Serigne Saliou kooku nekk du julit kooku maanaam dañ koo war a raafal ci julit barke Serigne Saliou dañ ko war a raafal ci julit man nee bi ci moom lañ ko war a commencé tey peine bi ci booy bi nga xam ne ñi ñi faat Abdou Aziz Dabala ci lañ ko war a commencé nañ ko téye essence yi téye ko ñu woote peine de mort màggal passé un mois bi njëkk def ci moom moom parce que kii lim dafa ñaaw vraiment ku mu ku mu ku mu méttiwul la waxuma la Sénégal xam nga dañu Sénégal mais reyu Abdou Aziz bi dafa metti aduna nit ku ñuul nit ku wex ñepp ci wax parce que dafa ñaaw mm. day dem ba après suñu dëkk bi dañu am sécurité day dem ba après tourisme yi dootuñ ñew ci réew mi day jël ay appartement fi jël ay hôtel mm. il comprendre nga mm. kon nak li ci wara jog moy kan nguur gi ñoo ci wara jog parce que nañ dem ba après tourisme yi dootuñ ñew ñëw Sénégal comprendre nga dañ naan Sénégal hôtel waxuma la appartement hôtel sax doo fa nangoo jege parce que dañ lay rey il se nga kon li ki ci war mooy kan le président Diomaye hmm. premier ministre Ousmane Sonko hmm. ñoo nekk ci réew mi ñoo yor ndaw ñi ñoo yor li nga xam ne mooy tourisme bi kon nañu dimbale rey dafa bëri Sénégal rey ani atay li nga koy dégg Sénégal déggoo ko benn réew kon le président Diomaye laay lancer message hmm. mu jóg ci du wenn kilifa diine moo jóg moom moo yor réew mi moom mooy lancer message peine de mort ku fi rey nit ñu la ku te déewul sax ñu jam la nombre de paaka yi ko jam il ko defoon woote ko barke Seydina kenn du jam nit kenn du rey nit ku fi nit tooñ mënoo koo muñal nga dem police porte plainte loolu mooy yoon parce que yoon mooy atte mais doo atteel sa bopp kon Ousmane Sonko président Diomaye laay lancé message ñu jóg ci li nga xam ne lii lu yàggee réew mi dina yàqu Sénégal na yàqu kenn dootu mën a aar sa alal dafa metti vraiment voilà jërë ngeen jëf merci